أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tey ñu ngi ak yéen ci benn yonent bu tudd idris alayhi salaam idris pour ñu xam moom mooy kan idris ibnu yarid ibnu mihlail ibnu qinan ibnu anus ibnu siis ibnu adam idris pàppaam a ngi tudd yaarid maamam bu njëkk mu ngi tudd mihlail beneen maamam mi ngi tudd qinaan beneen maamam mu ngi tudd anuus juróomeelu maamam mooy siis siis kan mooy baayam aadama alayhi salaam moom idris wulida idris fi hayaati aadam idris mu ngi judd ci dundu aadama alayhi salaam kon ngeen xam ne aadama gudd na fan loolu yàlla tabaraka wa taala wax aadama dund na alf sana illaa xam si na aman waaw lii mooy wane ne am na ndax aadama fekke na ci ay sëtam arbaa miata alf ñeenti téeméeri junni ci ay sët aadama fekke na ko ñeenti téeméeri junni ci ay sët aadama fekke na ko kon aadama gis na ay sëtam ba doyal moom aadama moom idris mu ngi judd ci dundu aadam wa adraka min hayaati aadam boroom xam-xam yi nee nañ ñaari version ñëw na ñu ne idris fekk na ci dundu aadam téeméeri at ak ñaar fukk version bu njëkk ñeneen ñi ne ñetti téeméeri at ak juróom-ñett aadama alayhi salaam idris fekke na ci dundaam ñenn ñi ne nañ téeméeri at ak ñaar fukk fekke na ko ñeneen ñi ñu ne fekke na ñaata ñetti téeméeri at ak lan ak juróom-ñetti at kon ñaari riwaay yooyu ñoo ci am su ko defee idris moomu alayhi salaam bi aadama bi siis faatoo fa lamma maata siis istafa allahu taala idris nabiyyan wa rasula bi aadama bi siis faatoo idris moo ñëw moom la yàlla tànn def ko yonent bu ñu yónni ci xeet woowu nga xam ne moom la siis bàyyi woon kon Idris kan la remplacé siis la remplacé siis kan la remplacé Adama la remplacé Idris mooy yonent bu njëkk bu yàlla yónni ginnaaw siis mooy yonent bu njëkk bu ñu yónni ñëw na ci téere qisasul anbiya bu ibnu kasir mu ne fa idris qad asnaahu allahu alayhi wa wasafahu binnubuwa wa siddiqa yàlla tabaraka wa taala misaal na idris alayhi salaam yàlla melal ko tagg ko ci ne yonant la waaye ku dëggu la woon moom idris wa kaana awalu bani aadam utiya nubuwa baada aadim wa siis alayhim assalaam mooy yonent bu njëkk bu yàlla yónni ginnaaw aadama ak siis bal boroom xam-xam yi sax nee nañ moom qaala al mufassiruun idris jaddu nuux ñu ne idris mooy maamu nuux idris mooy maamu nuux wa awalu mursalin baada aadam moom la yàlla njëkk a yónni ginnaaw aadam wa awalu man xatta moo njëkk a bind bu ñu la laajee kan moo njëkk a bind ci àdduna koy wax idris moo njëkk a bind bil qalami moo njëkk a jël big daal di bind wa labisa almaxiit moo njëkk a sol yére lu ñu ñaw ibli idris moo ko njëkk a sol wa kaanu min qablu yalbasuuna aljuluud avant idris di ñëw ci jamono siis ci jamono aadama nit ñi xam ngeen lan lañ doon sol ay der dañ daan jàpp kiwil rey ko fees ko lekk yàpp bi weer der bi defar ko ba mu baax def ko mbubb ak tubéy wala ñu jàpp gaynde mbaa segg mbaa benn rabu àll rek suñ ko jàppee rey ko boo xam dañ ko war a lekk ñu lekk yàpp bi su ko defee der bi ñu jël ko defar ko di ko sol ci jamono aadama loolu lañ doon def ci jamono Idris loolu lañ doon def ci jamono Idris nag Idris moo njëkk a ñaw yére daal di koy sol moo njëkk a bind moom lañ njëkk a yónni moo njëkk a bind moo njëkk a sol yére moom Idris alayhi salaam buñ la laajee ku njëkk a sol yére looy wax Idris fa inna idris alayhi salaam moom idris qad anzala allahu alayhi salaasina saxiifa yàlla tabaraka wa taala wàcce na ci moom fanweeri feuille pour mu war a waaraate nekk yonent donn maamam bu tudd siis donn ko ci yonent gi mbokk yi waqad jaa fi wasfihi kama ruwiya ibnu kasir siis ibnu kasir ñëw na ci tafsiram muy wax siis nu mu mel mu ne kaana taamul qaama ku motoon taxawaayam dafa motoon këkk xusnul waj kanam gi dafa rafetoon kassul liha sikkim bi dafa fattoon moom sikki moom dafa fatt nekkul sikkim bu yaraax malihu samail moom idris kanam gi dafa rafetoon ah sikkim bi fat mbagg yi dañoo yaatu woon aridul man ka bay nii mbagg yi dañoo yaatu woon diggante ñaari mbagg yi daxmul izaam yax yi dañoo rëyoon waaye qalilul laxmi dafa sewoon ruuj moom Idris bariqul ayna yi bët yi dañoo sew ak lahuma waaye kawar gi dafa bëri woon ba mel ne ku tusngalu ba di sew muy niroog chinois waaye mutaanniyan fil kalaami su daan wax day wax ndànk day wax wax bu posé ndànk lay wax kasiiru sunt ku bëri woon lu muy noppi la moom niroowul ak ñii di ñu teree dégg daa bëri woon lu muy noppi niroowul ak ñii nga xam ne dañoo nekk ci jàkk yàlla ñuy waaraate ñuy wax nuróowul ak ñooñu moom daa bëri woon lu muy noppi moom Idris waaye isa masa aksara nazarahu ila al ard suy dox du xullee day xool ci suuf bëtam day xool ci suuf fi muy dox suy dox moom danaan xool ci suuf du doon di xullee di geesu lu ko xoolul mu xool ko lu ko xool mu xool ko déedéet moom su daan dox benn place rek lay jubal di xool ci suuf xool kanamam dem daawul dox di gestu moom Idris waaye kasiirul fikra ku bëri woon lu muy xalaat la moom Idris bihi abs waaye dafa ñëkkoon boo ko gisoon da ngay yaakaar ne kii dafa am naqar dafa ñëkkoon loolu ngeen dégg ñu naan abasa dafa ñëkkoon moom Idris iza axtaba ihda su daan xutba di waaraate day dal waaye irtafa sawtahu mu yëkkati baatam ci kaw yuharriku sababatahu mu yënga mu yëkkati baaraam bi su daan xutba nii lay def di wax ci kaw yëkkati baaraam bi iza takallama su daan wax yuharriku shababatahu day yëngal baaraam bi nii di ko joxoon ci kaw wasfun daqiq lahu alayhi salaam melokaan bu sew bu ko boroom xam-xam yi seetlu daal di wax ne moom Idris alayhi salaam nii la meloon ixwaan yi Idris alayhi salaam zalla ala sariati siis Idris ban sharia la doon doxal ban atte la doon doxal atte siis lu tax mu ko doon doxal lu tax mu doon doxal atte siis kuy tontu lu tax lu tax mu doon doxal atte siis parce que siis daa dee mu donn ko moom moo fi toog moo remplacé siis moo tax mu donn ko ci sharia bi wa badaa yu diifu ilayha mu commencé nag di ci yokk lan moo tax mu am fit li fi siis bàyyi woon mu commencé di ko yokk lu tax parce que moom moo ko remplacé yàlla yónni na ko ku yàlla yónni rek am na lu la yàlla jox li nga fi fekkoon lu baax da ngay yokk gis nga yonentu yàlla Muhammad yokk na innama bu istu li utammima li utammima makaarimal axlaaq yàlla dafa maa yónni pour ma mottali ma mottali kon am na lu muy fekk mais day mottali lan makaarimal axlaaq jikko yi rafet yi ku yàlla yónni rek am nga loo fi fekk li nga fi fekk da nga ci yokk boo fekkee lu bon moom da ngay xeex lépp mu dañ mais boo fekkee lu baax nga fexe lu baax loolu mu gën a baax ba pare nga yokk ko loolu mooy mission yonent yi alayhimu salaam moom ñëw na wa bada yu diifu ilayha sharaiun uxra yeneen ñëw na di yokk ci li fi Idris bàyyi woon li fi siis bàyyi woon yeneen sharia li annahu rasul ndax moom yonent la fa lamma raa alfasad yantasiru bi mu nekkee nag di waaraate di jàngale diine di leeral li yàlla bëgg li aadama indi woon siis donn ko ci aadam di ko jàngale ba siis génn àdduna moom mu donn ko di ko jàngale di ko leeral mu tàmbali gis bu leen fàtte lu tax bu leen fàtte ne siis bi muy faatu am na lu mu fi bàyyi lan la fi siis bàyyi ci ñaari groupe bàyyi na fi waa kër qaabil ak haabil ñan ñoo doon ñu baax ñi kër qaabil ñan ñoo doon ñu bon ñi kër haabil léegi nag ñooñu ba tey ñu ngi fi Idris jékki-jékki mu gis ñooñu commencé di yàq yàq bu méttee méttee métti yemuñ sax ci yàq waaye tàmbali nañ yaataduuna alal muminin commencé nañ sax ñëw di fekk ñi gëm yàlla ñuy jalgati seen kaw di leen def yu bon di leen wax yu bon bal sax yenn saa yi ñu jàpp rey ku baax lan la Idris def bi mu fekkee loolu shara al jihad mu daal di yoonal jihad moom moo njëkk a jihad ci yoonu yàlla kon Idris li mu def li mu njëkk a def bari na de bokk na ci li mu njëkk a def moo njëkk a moo njëkk a moo njëkk a bind moo njëkk a ñaw yére moo njëkk a sol yére ñaw waaye moom la njëkk a yónni waaye moo njëkk a jihaad jihaad bii ngeen di gis lan mooy jihaad xeex ci yoonu yàlla ba ñu rey la mooy jihaad loolu rek mooy jihaad de amul beneen yoon booy xeex lu dul du jihaad xeex ci yoonu yàlla rek pour kaweel kàddu yàlla bu ñu la ci reyee da ngaa shahid da ngay dugg aljanna loolu mooy jihaad Idris moo ko njëkk a def moom Idris alayhi salaam shara al jihaad mu yoonal ko fa kaana awalu man qaatala fi sabilillah moo njëkk a xeex ci yoonu yàlla wa awalu man xanama wa saba moo njëkk a jël ay koom bi mu xeexee gaa yooyu am ñu mu rey mu jël seeni bagage moom Idris loolu mooy xanam waalamu anna ma ganimtum min shay alquran la ah mu ngoog xumus yàlla moom moom juróomeelu ceer bi mu ngoog nee na fa jahara fa jahaza jaysan moom idris ba mu santaanee ba mu yoonalee jihaad lan la def fa jahaza jaysan bil xuyuuli wal mashaad mu daal di préparer armée mu takk ay fas mu njëkk a xeex war fas ci yoonu yàlla ba pare organiser encore ñi nga xam ne amuñu lu ñu war ñuy dox ak seen tànk moom idris alayhi salaam wa hajama ala qawmi qaabil qaabil mooy ku bon ki qaabil mooy ku bon ki wa hajama ala qawmi qaabil wa hazamahum mu daal di song nitu qaabil yi fa ñu nekkoon comme ay yàqkat lañ woon mu rey leen noot leen wa saba minhum ñu bëri ci ñoom mu jàpp leen ñenn ñi daal di tuub ñenn ñi daw yóbbaale seenu mbon wa badaa almaarik bayna alxaq walbaatil bayna alxayr walchar foofu la xeex tàmbalee diggante dëgg ak fen dëgg ak fen chaque jour dañuy xeex bi yàlla bindee àdduna ba fii ñu toog dëgg ak fen dañuy xeex rek lu bon ak lu baax dañuy xeex te loolu du fi jóge ila an yarisa allahu al arda wa man alayha ba yàlla doon suuf ak ñi ci nekk kañ la kañ la dëgg kañ la fen di gañe dëgg kañ kañ la fen di gañe dëgg mooy su dëgg yambaree comme tey dëgg ni mu yambaree xam ngeen tey dëgg daa yambare dëgg amul place ci société bi saa yu dëgg yambaree ñàkk solo fen day ñëw jël ay bagaasam jël ay jumtukaayam daal di koy samp ci dëgg pénc mi daal di nekk dëgg nit ñi dañuy dem ba dootuñu war ragal wax dëgg nit ñi dañuy dem ba ragal dootuñu mën a def lu baax ndax ku def lu baax ku ne ñu sikk la ku def lu bon ñu yëkkati la ci kaw xoolal tey xale bu jigéen bu def yar mu neen li ñuy wax non mais xale bi dafa rafet mais kii toj na fii mais kii disket na mais kii su xale bi muuroo ñu ne onze billahi mina sheytaani rajim ak ñu musal de bu ñu bu ñu um de yàlla nañu yàlla musal ci sax ci sa muuraay ngay nuroog malaaka est-ce que malaaka day muuru waroon nañ leen laaj ne leen yéen yéen ñi naan kuy muuru da ngaa mel ne malaaka ndax yéen da ngeen a mën a gis da ngeen a mës a gis malaaka mës naa gis benn xale bu jigéen buy tux cigarette fii ma wàcc ci corosement bi ak keneen maam seex nee na gis na ko principal ma gis xale bu jigéen bu sax cigarette nii di tux nii mu doon ay xale yu góor ñu naan jaajëf waay mais kii ngand la non mais kii dafa branché wu. innaali dama tiit keroog xale yu góor yi naan ko jaajëf xoolal lu bon la jigéen cigarette bon na ci góor sax waxuma la ak jigéen mu romb ay góor de ay ay xale jigéen de yeneen xale jigéen yi naan moo kii ni muy def nii nag nga gis xale yu góor naan de non yéen ay seer ngeen kii ngand la jaajëf mais mais sister jaajëf waay inna lillahi wa inna ilayhi cigarette bon na sax ci bon na sax ci góor waxuma la jigéen léegi loolu moo lu ma leen bëgg a woon mooy mbon mbon su demee ba tasaaroo xam nga nu mel lu bon xam ngeen nu mel mu ngi mel ne duus gis nga douche boo duggee première minute yi te xasaw mais boo fa yàggee dara dootul xasaw noonu la lu bon mel lu bon dafay sax ba dootul nekk lu bon léegi lu baax la lu baax nag soo koy def léegi da ngay ragal nga ñëw di nuyoo asalaamu aleykum wa rahmatullah nit ñi dañu ma mais mais mais mais yow yow xanaa yonant nga bu ñu yónni mais looy arabal nii xanaa yow màkk nga jóge wala mais boo ñëwee waa jal jëfaay gars yi nu mu demee nag mu ngi dëgg ñu ne xëy gaan bi saaba la quoi gis nga maanaa tey lu bon daa bëri ci Sénégal ba nga xam ne lu baax kenn ñemeetu ko def soo bëggee sax sol yére bu baax ñu ne la non yow tamit yow loo mel ne ku jëm conférence nii xanaa conférence ngay dem gis nga allahu akbar léegi da ngay sol yére bu bon soo bëggee wax sax lu baax ñu ne moom loo yiw yiwlu loo yiw yiwlu ndeysaan tey daal kenn ñemewul def lu baax loolu mooy saa yi ngeen gisee dëgg yambare rek mooy dëgg moo daw te dëgg saa yi dawee rek seen daal di indi ay bagage am daal di toog frenkolaay ci digg ëtt bi nag kenn dootu ci def lu baax mooy li ngeen di gis nii organiser ay fesman tabax ay monument nit ñi soxla lu baax de nit ñi soxla alal ji bu ko def bu baax kenn du ko am hôpitaux yi boo demee am nañu feebar ñu ngi dee amuñu ordonnance barki dem benn waaye nee na ma morgue bi nit ñaa ngi nëpp parce que dëkk bi amul courant dañuy mujj di woo borom néew yi kaay leen ngeen jël seen néew même bu ngeen amul lu ngeen fay sax jël leen yóbbu suuli ndax néew yaa ngi yàqu gaz bi gis ngeen gis ngeen dëkk bi courant kenn mënu koo am barki démb ba léegi xale yaa ngi taal ay pono ci dëkk bi maanaam lu ko waral mooy lu bon moo tasaaroo ci biir dëkk bi ba kenn gisatul lu baax kenn gisatul lu baax lu bon rek gis ngeen sàcc bi ñu jàpp fi barki démb ni nga ñëw ci jàkk amoo fooy sàcc ji lu dul néegu yàlla néegu yàlla waxoon naa leen di ngeen ko jàpp di sàcc di sàcc romb néegu ñëpp ñëw ba néegu yàlla nag di sàcc ah ñii ñeme nañ de est-ce que nit ñeme naa dem kër Ablaye Wade di fa sàcc est-ce que nit ñeme na dem kër commissaire di sàcc est-ce que nit ñeme na dem kër gouverneur di sàcc kër commandant nag léegi nag nit ñëw ba kër yàlla di sàcc ñeme woo dem kër gouverneur ñeme woo dem kër commandant ñeme woo kër commissaire ñeme woo kër président nga ñëw kër yàlla yàlla na yàlla jubal ixwaan yi mbokk yi Idris alayhi salaam préparé na armeem ci ñu war ak ñuy dox mu daal di song nitu qaabil yi mu xeex ak ñoom mu rey ci ñoom lu bare bari keroog bi nga xamante ne dëgg ak fen ñu ngi doon xeex lu baax ak lu bon waaye Idris xam ngeen ni mooy yonant bi nga xam ne siiwul Idris siiwul su ma waxee siiwul du question nit ñi xamuñu ko parce que Sénégal am na ñu fi tudd Idris adduna bi am na ñu tudd Idris mais li ko yàlla wax ci alxuraan moo bëriwut lu dul benn aaye su ma juumulee borom bi tabaraka wa taala di wax ne wazkur fi lkitaabi idris innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya borom bi nee na fàttalikul yow muhammad ci sa téere bi muy alquran yonant bu fa yàlla tudd bu tudd idris alayhi salaam innahu moom idris yàlla nee na kaana nekkoon na siddiqan ku dëggu la woon ku yàlla tagg rek yow yaa nekk ci dëgg lan la yàlla taggee idris siddiq dafa dëgg aboubacar lan la ko yàlla yonent bi taggee siddiq ku dëggu kon mbokk yi ñun il faut ñu dëggu gis nga soo xoolee yonent yi alayhimu salaam ku nekk am na loo def lu la yàlla taggee ñun xam nga lu ñu sonal est-ce que xam ngeen ñun ñi lu ñu sonal mooy da ngay fekk téeméeri mbir nga ni da nga def téeméeri yëpp su ko defee benn sax doo ko ci def da ngay dégg benn waay bu ne man insha allah léegi lundi ak jeudi dama koy woor rek mu commencé ba ci yàgg mu yokk ci ñetti fan le 13 la 14 la 15 ayaamul biir mu jékki-jékki loolu daal di koy sonal mu bàyyi yëpp nga jëg benn waaye mu ne man de damay naa fi la guddi sobe yàlla léegi cinq heures damay jóg sobe yàlla mu commencé ba ci yàgg rek mu ne xaaral ma commencé 4 heures xam nga 5 heures baaxoon na xaaral ma yokk ci 4 heures léegi nag bu commencé 4 heures xam nga ay nelawam dootul doy mu commencé am problème mu daal di bàyyi yëpp wala gis benn waaye mu ne damay mokkal alxuraan bu sob yàlla bis mu nekk dinaa jël benn xisib wala benn sumun wala benn rubo wala benn nisif mu commencé mu baax ba caag rek mu ne xaaral ma jël ñett ñeent yëf yu metti mu daal di bàyyi yëpp gis nga saxaaba yi sax dafa am kenn ku nekk loo jël benn jikko rek nga jël daal di ciy sax raw say morom Aboubacar lan la jëloon Siddiq Umar al Faruq Ousmane al Haya kersa Ali ilm gis nga ku nekk am nga loo jël xoolal yonent bi saa saa su ngeen demee ci miraasu nabi feuille bi ñu taf fii ci buntu kër gi di ngeen fa fekkee benn xadis boo xam ne yonent bi dafa jékki-jékki rek xëy suba woo Bilal ne ko Bilal yow lu tax nga njëkk ma aljanna xoolal yoon Bilal moo njëkk yonent bi aljanna Bilal de njëkk yonent bi aljanna Bilal yow loo ma njëkkee aljanna démb ci guddi ba ma demee aljanna dégg naa say tànk di fa yëngatu yow Bilal loo def ba dugg foofu mu ne saa yu ma noddee dinaa julli ñaari rakk am na riwaaya bu mu ne saa yu ma njàppee njàpp mu bees dinaa julli ñaari rakk xoolal moom ci ñaar yooyu rek la sax gis nga kenn ku nekk da ngay jël dara yàlla la la tagge Idris tey mu ne siddiq lu mu tagge Ibrahim iman inna ibrahima kaana umma mu nekk imaamul muwahidin ku nekk yonent bu nekk di nga gis am na lu ko yàlla teg Ismaïl yàlla leen danaan julli ku nekk rek am nga dara lu la yàlla wax ci yonent yi alayhimu salaam gis nga kon nit soo bañee sonn da ngay jël benn jikko saxal ko ci sa bopp jéem cee dee waaye boo déggee ñu ne diw mokkal na nga di xaaral ma mokkal ñu ne diw jullikati guddi la nga ni xaaral ma juddi diw day woor nga ni xaaral ma woor diw day xiyaam nga ni xaar xam nga bu yàggee nooy def da ngay éclater ndax mënoo def lépp kenn mënul def lépp dajale lépp mënoo ko da ngay raw ci dara rek benn sahaaba yonent bi dafa toog ba càgg mu ne nit aljanna mi ngi ñëw benn waaye ñëw toog ñëpp xool ko ba jotaay bi jeex suba amaat ñëpp toog yonent bi toog ba càgg mu ne nitu aljanna mi ngi ñëw waa ji ñëwaat ah kon xanaa léegi dëgg la kii nitu aljanna la ndax yonent moo ko wax benn waay bàyyi ba jotaay bi jeex mu ñëw ci sahaaba bi ne ko man de damaa bëgg ñëw rek nga héberger ma sa kër ñetti fan lan lay xool si kii lan la def ba nekk nitu aljanna mu ne ko lan la lu tax nga bëgg a nekk si mu ne ko daama bàyyi ma rek dimbali ma rek héberger ma sa kër ñetti fan mu ne ko amul problème mu ñëw kër sahaaba bi saxaaba bi gis na waa ji comme ñoom rek la mel bu wëri julli jotee day jàpp dem ànd ak ñoom dem julli guddi yeewu na ci guddi gi naafila na lu ndaw jàng na alquran tudd na yàlla moom daal nekkul ko ëppal yeewul 3 heures du matin di jàpp di yuuxu di déedéet dafa simple comme nit ñi waa ji waa ji daal di jaaxle mu ne kii man yaakaaroon naa ne du lekk day woor rek du nelaw guddi day naafila rek day jàng alxuraan mais kii daal gis naa ne ñun ni ñu mel noonu la mel ba ñetti fan yi jeex mu ñëw ci waa ji mu ne ko waayo man damaa toog ci wetu yonante bi mu wax ñaata yow ñaari yoon nitu aljanna nga ñëw nga ñëw mu leer ñu ne yow la léegi nag soo gisoon keroog ma ne la damaa bëgg nekk si kër ñetti fan mooy damaa bëggoon xool nooy jaamoo yàlla ndax ma toppandoo la mais gis naa ne daal yow ñu nag yow dong ñoo yem kon yow lan nga def ba dugg àjjana ko ah man de wax dëgg yàlla jaamu yàlla moom ni ci nit ñi mel rek laa ci mel lu simple rek ni ma ma cee simple rek ëppaluma jëluma lu ma mënul waaye nag yaakaar naa ne daal bu dee lenn tax na li ma yaakaar ne daal loolu moo ma dugal aljanna mooy sama xol bi iñaanewu ma ci kenn sama xol bi dencalu ma ci nit lu bon allahu akbar xool kooku li mu jël xolam bi dencalu ci kenn kenn kenn lu bon kon nañ jël tuuti xuzu min al amali ma tutiquun yonente bi nee na jël leen ci mbir mi lu ngeen mën fa inna allaha la yumillu hatta tamillu yàlla du yokkat lu dul ngeen yokkat kon kuy jël jëlal loo mën banu israil xam ngeen ne bokk na ci tax yàlla alag leen mooy dañoo mën a diisal ibnu abbas nee na falamma shaddu shaddada allahu alayhim ba ñu taralee yàlla taral seen kaw mbokk yi idris yàlla nee na siddiqan ku dëggu la woon waaye nabiyan yonent la woon yàlla mu ne wa rafanaahu makanan aliya yëkkati naa ko place bu kawe yëkkati naa idris place bu kawe la am loolu ñëw na ci hadis as-sahih allazi yarwihi al-bukhari ñëw na ci hadis boo xam ne bukhari moo ko solo anna nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iltaqa bi idris fi samaa'i rabi fi laylati al-isra yonent yàlla muhammad alayhi salatu salaam bi mu gàddaayee jóge ci asmaan jóge ci suuf dem kaw asmaan fekk na Idris asamaanu quatrième kon Idris ku kawe la mi ngi quatrième asamaan fa la nekk xam ngeen yonent bi romb na asamaan bu nekk am na ku mu fa gis mais quatrième asamaan kan la fa fekk Idris alayhi salaam léegi nag boroom xam-xam yi yal na leen yàlla fay am na lu ñu wax ci lu ko yóbbu quatrième asamaan te deewul ñenn ñi ne noonoo dee na waaye li tax ñaari xissa yii bi ci tane mooy bi ibnu kasir nettali ci téeréem te ba tey riwaaye boobu dañ koy jam bu njëkk bi moom ñàkk wéram ñépp ci dëppoo dañu ne idris mooy ki dugg aljanna te deewul ñu ne nan la loolu nu mu nekkee ñenn ñu ne Idris dafa toogoon benn jour rek naaj bu tàng jër ba ñëpp sonn rek Idris mun ah yàlla bu fekkee ñun ñoo toog fii tàngaay bi du ñu rey waaw malaaka bi nga dénk sa aljat naaj bi mu yor ko nag kan malaaka boobu di ay mbiram dina doy waar yàlla malaaka bi yàlla na ko dimbali ay malaaka yu ko jàppale ci liggéey ci jant bi malaaka bi yor jant bi toog ni benn jour rek gis ay malaaka yu baree baree bari ñëw di ko liggéeyal mu ne waaw yàlla man fan laa amee li yàlla mu ne ko benn sama benn jaam bu tudd Idris ñoom ñoo koy nettali de sama benn jaam bu tudd Idris moo la ñaanal lii rek mala malaaka boobu mu ne ah kooku foog ma xam ko mu nekk sama xarit yàlla mu ne ko mu ngi place sàngam malaaka bi ñëw wàcc foofu ziar si ko waxtaan ak moom xamanteeg moom nekk xaritam léeg-léeg malaaka bi ñëw ziar si ko chaque instant bu benn bis rek Idris ne ko waaw yow dangaa xam malaakal mawti ñoo xam naa ko kay sama waay la waaye dama ko présenté mu ne ah kay soo bëggee rek mun naa la ko yóbbu présenté la ko mu ne ah kii bëgg naa mu daal di indi malaakal mawti wala mu yóbbu ko ci malakal mawti mu daal di koy présenté Idris Idris xamante ak malakal mawti bu benn bis Idris mu ne malakal mawti dama bëgg nga ñamal ma dee mu ne ah yow looy wax ni mu ne dama ko bëgg a dee dee dee nu mel rek xool nu mel rek malakal mawti daal di koy rey dundalaat ko mu toogaat ba caag benn jour mu ne ko mais dama bëgg nga yóbbu ma kaw asmaan ma xool mu ne ah xam nañ dem mu daal di koy yóbbu bañ egg mu ne yóbbu ma safara mu daal di koy yóbbu mu xool gis lépp mu ne yóbbu ma aljanna mu yóbbu ko aljanna mu taxaw ci bunt bi nag di ko xaar mu jox ko heure heure bi jot mu ne ko Idris heure bi jot na mu ne ko eh dimbali ma de génnu ma de mu ne lu tax doo génn mu ne yàlla moo wax ku dugg aljana doo génn naat nga bëgg ma génn non man dama dof malaaka bi am problème ne ko da ngay génn parce que yàlla dene balaa ngay dugg aljanna fo nga dee te yow deewoo mu ne ko ah yow démb loo ma ñamaloon
yàlla daan ne malaaka bi bàyyil jàmbur bàyyil jàmbur demal sa yoon malaaka bi daa dem daal di bàyyi foofu Idris beneen riwaaya bi dañu ne yàlla tabaraka wa taala dafa wax yu Idris ne ko dinaa la may tiyaaba yoo xam ne sa peuple bi nga jiite ni ñu toll ci mbooloo dinaa la may tiyaaba yu toll noonu malaaka bi bind jëf yi daal di yéemu ci waa ji muy bindal bés bu nekk jalu tiyaaba kii mooy kan kii de tiyaaba am bëri na ñu ne Idris alayhi salaam la te kii de bëgg naa xamante ne mu ñëw xamanteeg Idris xamanteeg moom xamanteeg moom ba ci àgg mu daal ne Idris Idris ne ko waayow man damaa bëgg nga yóbbu ma ko asamaan ma dem visite rek malaaka bi teg ko ci ay mbaggam naaw ak moom yóbbu ko yóbbu ko yóbbu ko ba quatrième asamaan yàlla daal di yónni malakal mooti demal nga reyal ma Idris quatrième asamaan malakal mooti malakal mawti daal di tiit bi mu ñëwee quatrième asamaan mu dajeeg benn malaaka bi mu ne ko yow looyut fii mu ne ko yàllaa ma yónni naa dem rey ji Idris ci suuf mu ne ko Idris nekkul ci suuf de mu ne anam mu ne mi ngi nii sama mbagg yi fii laa ko teg mi ngi nii rek malakal mawti daal di waaru mu ne yàllaa ma wax léegi léegi naa dem quatrième asamaan fekk fa Idris rey ko ndeke yow indil nga ma Idris ba fii mu daal di koy rey foofu moo tax mu nekk quatrième asamaan nee nañ loolu moo ko fa bàyyi même riwaaya bu mujj bi ma leen di wax mu ngi ci téere ibnu kasir tafsir bi waaye ci fin bi da ngay dégg mu wax ne xissa bi wéeru kon daal ñaar yi ma wax yépp ay israiliyaat la te xam ngeen israiliyaat am na luñ ñu ci wax mooy laa tusaddiquha wala tukazibuha bu leen ko weddi bu leen ko dëggal am na benn borom xam-xam bu mag bu wax ci tafsiru ibnu kasir mu ne kaabul ahbaar kenn la ku daan nettali ay israiliyaat moom bokk na ci ñi wet nettali version bu mucc bi ma leen wax kon idris alayhi salaam mbiram ngi noonu yàlla mu ne wa rafanaahu makaanan aliya idris yëkkati naa ko place bu kawe ndeysaan wa maata idris alayhi salaam idris faatu na foofu yàlla yóbbee ci kaw asamaan wala ngëpp nañu ruuxam foofu ca quatrième asamaan yàlla yónni waatul nag beneen yonent wala mi ba as na bii amul beneen yonent taraka al bashar ala shariati siis nit ñi bàyyi nañ sharia siis wa sharia idris wa sharia adam la fi idris bàyyi woon nit ñi bàyyi nañ ko bàyyi nañ li fi siis indi woon bàyyi nañ li fi aadama indi woon wan tasaral fasaad yàqute daal di tasaaroo moo tax nit ñi chaque jour bu ñu bàyyee diine rek yàqute ñëw na nit ñi lan moo leen di baaxal jamono bu nekk diine nit ñi lan moo leen di baaxal waxtu wu nekk diine li tax nit ñi di jub di baax diine kese saa yi nit ñi bàyyee diine rek gis ngeen comme tey suñu dëkk bi ni mel bàyyi bi ñu bàyyi diine rek moo ñu jural lii lépp ñu nekkee bu nu amoon diine dëkk bi du mel nii xool leen dëkk yi am diine nu mel xool leen dëkk yi am diine rek doo fa dégg ku ñu rey doo fa dégg dara dara jàmm rek jàmm rek diine mooy jàmm xoola yàlla lu mu wax walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaabi laallakum tattaqun même ku rey nit nañ ko rey yàlla nee na bu ngeen ko defee rek di ngeen di dund yéen ñëpp diine rek mooy tax nit ñi dund dund gu neex ci kaw suuf suñu bàyyee diine rek dañuy alku mbokk yi ginnaaw ba Idrissa faatoo yàlla yónni waatul beneen yonent nit ñi bàyyi nañ diine idris diine siis diine adam yàqute daal di tasaaroo wa bada annaas yasdaaduna fi ifsadihim nit ñi commencé di def bépp mbon zallu ñu daal di continuer di nuur ci caaxaan waaye ci jamono boobu nit ñi ak mbon la ñuy def waaye bàyyiwuñu tawxiid ba léegi nit ñi amoon nañ tawxiid ci jamono boobu jaawuñu jaamu xërëm diggante boobu ñaataat la alfu sana junni at ginnaaw idris alayhi salaam nit ñi toog nañ junni at ci caaxaan rek lañ nekk di naan sàngara di njaaloo di fecc mais duñu jaamu xërëm loolu mooy wax ji yàlla tabaraka wa taala wax kaana naasu ummatan wahida nit ñi benn nation lañu woon benn mbooloo ci jaamu yàlla kenn du bokkaale ba ñu demee nag ba junni at yi jeex nit ñi daal di commencé jaamu xërëm bi nit ñi commencé jaamu xërëm kayfa badaat ibadatul asnaam naka la jaamu xërëm commencé insha allah talaata bii di ñëw ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala dina leen indil histoire nuux alayhi salaam net wax leen naka la jaamu xërëm commencé ndax ci jamonoom ba xërëm amee ci la yàlla tabaraka wa taala tànn nuux yónni ko kon àllarba bi di ñëw nuux la alayhi salaam asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh